alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokk auditeurs yi nga xam ni yéen a ngi ni topp ci émission alfatawa bi ngeen yàgg ànd ak cheikhana docteur Mouhamed Ahmed Lo xafidahu llahu wa raah wa mattaahu bi sixati wal aafiya xëy na taxawoon nan ay ay bis ngir tawat boo xam ni gaaroon na ci seyxana yal na ko yàlla dolli wér waaye nag alhamdulillah euh, tey euh, mu ñëwaat ci émission alfatawa ngir war ko àggalewaat ak euh, ñun xam giñu ñu xam ak yëg gi ñu yëg ni benn semaine rek bu ko taxawee ñu ngi koy méttee moo gën a tar ni muy yéege mettitu yaram wala leneen ba tax na alhamdulilah saa yu yéegee ci yaramam astan lum tuuti tuuti tuuti tuuti tuuti dina forcé ngir euh, jottali kàddu borom bi subhanahu wa taala kon yal na ko yàlla sàmm yal ko yàlla wéral yal na ko yàlla kàttanal dawal ko mboolem jullit kon cheikh bi ñu jox nga ubbee xëy na tamit euh,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 sallallahu wa sallam alayhi wa ala alihi wa ashaabihi ajmaina amma baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh mbokk yi ñuy déglu ak fépp fu ngeen fi mën di toll noo ngi del siwaat ànd ak yéen ci suñu jotaay bi nu bokk muy jotaay alfatawa di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu defal na tawfiq defal leen ko may ñu yërmande te defal suñu mbir mbokk yi xam ngeen ne alfatawa taxaw na ab diir boo xam ne say boo ñu ne bañ ko tàmbalee ca deux mille ba léegi def naa ne mosul taxaw diir boo xam ne bu taw noonu la waaye lépp ànd ak cant ak sunu borom tabaraka wa taala ndaxte sunu borom eh, mooy dogal lu ko soob moo dogal yaram wu sutaate maanaam wére bi te loola kat eh, dafa doon loo xam ne sunna sunu borom tabaraka wa taala aw doxalinam la ci ay bindeefam ngir jamono yu nekk rek am na luy yee jaam bi di ko wax ne ko yow da ngaa sa boroom te munoo demal sa bopp loolu moo tax lan nit ka jëkk aajowoo mooy ak gindiku te ci siraatul mustaqim loolu amul fu mu ko jëlee lu ci boromam lekk mii nga xam ne fu waaye toll danga soxlaa lekk bés bu amul foo koy sukkandiku fu dul sa boroom naan nekke noonu feebar it nekk noonu ku feebar wér ga fa ko war a mën a jële mooy sa borom tabaraka wa bu jógee fi jotee it sa borom tabaraka wa moo la fiy jële bu dekki di am moo lay dekkalaat bu njëggal di am moo lay jéggal yàlla na suñu borom tabaraka wa taala boo la jéggal kon gën a feddaliku rek gën a jox suñu bopp suñu borom tabaraka wa taala gën koo won ne ko yaa moom mbir yi ca mbarga yi ci say yoxo la nekk الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أتمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين kooku mooy sunu borom tabaraka wa taala kon Cheikh Abdallah mën nañu daal di jublu ci liggéey bi waffaqakum albaari jërëjëf cheikhana jazakum allahu xayra cheikh bi kii dafay laaj mu ni yàlla def nañu dugg ci at bu bees bi ci mille quatre cent quarante trois mu ni lan la lislaam ak sunna jàngale ak joxe ko teggin ci wàllu tamxarit ak euh, fan yi ñu nekk ndax ñu mën koo jëfee alhamdulilah santaane yi nga xam ne lislaam jàngale na ko ci weeru tamxarit bokk na ci li war a xam mooy ñu xam ne eh, jotuwul dara lu ñuy tudde at mu yees at mu màggat ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk na fi ba jóge ko ba jóge fi weeru muharram kenn tuddewu ko weeru at mu yees abubakar siddiq itam noonu kon ci jamono omar ibn alxataab radiallahu taala anhu ci la diisoo ak saxaaba yi ba nekkoon ngir ñu mën a am taarix boo xam ne dañ ci date lépp lu jëm ci wàllu administration bi ak lépp xeeti leetar yu leen di dikkal tey am ay date ñoom it suñu tontu ñu mën koo tontu ci loolu lañ bokk waxtaanee gannaaw ay proposition yu bari ñu tànn ci proposition gàddaayu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam def ko mu nekk date bi kon yonente bi alayhi salaatu wasalaam moom datewul ci gàddaay bi Aboubacar defu ko waaye Omar moo ko def te ci alxulafaa u la bokk jëfam jub rek lay mën a doon rawatina moom saxaaba yi ba nekkoon yëpp te Ousmane ibn Affan ak Ali biir doy na xam ne kon jooju jëf noona la am na santaane yi nga xam ne dañ ko ci santaane rek loolu jiitu na loolu yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñaari santaane rek la ci am yu def mooy weeru muharram sunnaal na ñu woor fukkeelu fan ba ñu woor fukkeelu fan ba ak juróom-ñeenteelu fan ba ñaari fan yooyu leen mën a boole woor leen def nga sunna leneen ñu see def bu nekk nag xamal yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale wu ko daanaka loolu rek koy gàttal ba ci tudde gi ñu ko tudde at mu yees di ci becc weccente ay ndokkeel ak yu nuróog yooyu yooyu yëpp du yi ndax Omar ibnu Xataab mi nga xam ne dëpp woon na ak saxaaba yi ñu ñu tànn muharram nekk weer wu jëkk ci at mi eh, taxul woon saa boo xam ne weeru muharram ñëw la dañuy ndokkeelante mel ne ku ci ceeb wala mel noonu kon yooyu yëpp yu sos la yu mat a wattandiku la xëy na ku la yónnee ay ñaan wala yu mel noonu mënoo ko bañ ne ko amin waaye itam ñu ci yeete waale seen mbokki jullit di leen xamal ne loolu kat dëppoowul woon ak leen saxaaba yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñu tànnoon bis bi def ko mu nekk am am at defuñu ko woon mu nekkul feet defuñu ko woon bu doon loo xam ne dañ ciy nokkeelam naam jërëjëf Cheikhana jazakumullahu xayra cheikh bi ki nee na dafay gis benn kuréel boo xam ne daal tamxarit bu ñëwee dañuy nekk ñoom di dóor seen bopp di métadlo ak di ŋàññi saxaaba yi di leen wax lu ñaaw mu ni kuréel boobu mooy ban kuréel ak lu tax ñoom ñuy def loolu ak ndax loolu ñuy def lu l'islam santaane la wala déet. alhamdulilah xam naa kuréel boobu yi muy wax moom li mu ci jublu rek mooy cheikh yi. ndax ñoo jël bis bi nga xam ne ne Xuseyn da ca faatu woon radiallahu taala anhu te ñu rey ko aw reyin woo xam ne wu rafetut la ñu jël ko def ab dëj bu continuer boo xam ne saa boo xam ne waxtu wu del si waat na dañuy fàttaliku Karbala di jam seen bopp di di seen deret ci bopp di wax ne comme que deretam daa tuur woon ñu dañuy tuur seen deret loolu moom ak réer la ak ceddo la ñàkk a xam lislaam la ndax Xuseyn bàyyi na ko gën Ali ibn Abi Talib te dañ koo rey lu tax jëluñu bisam di ko def noonu ñi faatu ñëpp ci jullit ñi te gën Xuseyn bari na maama nga ci kon bàyyi ma nga ci ñeneen a nga ci te ñooñu taxul kenn di jël seen bis di ko def ëpp dëj aw naqar dana am ci lislaam waaye nag naqar wuy wekkate wu di continuer at mu ne nga fàttaliku ko lislaam moom tëralewut noonu moo tax ñoo ci biir lañ nekk te seen deret yooyu ñuy tuur danañu leen ko laaj ndax euh, lañ ko jëmale jëmu ca euh, te it li wér si wér mooy li leen ci borom xam-xam wax képp koo xam ne dangaa jóg soo lam niñ nga bot ci ko jëmale ko ci saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak i euh, soxnaam waxuma mbugalum ëllëg waaye mbugalum fii fi lay tàmbalee kon ñooñu yor ay paaka di ko jam seen yaramu bopp muy sotti ko deret yi di gas gas yi mbugal la moo xam ne fii lañ ko leen ko tege ci adduna ñu nangu ko teg ko seen bopp ëllëg xaw ñu nag mbugal mi ñu dajeel mu su fekkee ne tuubuñu del siraat ci li nga xam ne mooy siraatul mustaqim wallahu taala alam jazakum allahu xayran cheikhana